dali nay jàmm ñu ànd xëy yër yéenekaay yi nga xam ne moom la ñu xëyandoo yéenekaay gi di réew mi ko dëje xëy nag ci kafuyas bi nga xam ne moo am ci lu jëm ci ubbi jumaa yi ak jàkk yi wala sax bërëbu jaamukaay yàlla yi ginnaaw nag bi nga xamante ni état bu Sénégal tëjoon na nag bërëbu jaamukaay yàlla yi bëri woon na nag ñoo xam ne dañu doon sàkku daal ñu daal di koy ubbi njiitu réew mi di président Macky Sall fan yi ñu génn moom nag mu daal di santaane ngir nag ñu daal di ubbi bërëb yi nga xamante ni moom la ñuy jaamoo yàlla waaye nag mbir mi dafa mel ni Sakho daat na cay ama yéen a kaay groupe promo consulting bi mu xëy di ñu xamal na ñu ginnaaw nag jumaay omarienne ji nga xamante ni ñoom nee nañu daal du ñu ko daa di ubbi grande mosquée bu ndakaaru noonee tamit la ñu doxalee ba jawiya El Hadji Malick bi ci ndakaaru ak nag jumaa yi nga xamante ni ñoo nekk ca diwaanu Tiwaawan ak daara ya yéen a kaay gi di réew mi quotidien mu ñu xamal na ñu grande mosquée bu Saint-Louis ñoom tim la ñu xamle daal du ñu ubbi nag seeni bërëbu jaamukaay yàlla ndax jamono ji woppi coronavirus ma ngi gën di law ci réew mi kaay gi nee na bu dee nag ñoom ñoo ngi way di ubbi seeni juma ak seeni jàkk waaye nag jël ci ay matukaay yéen kaay gi di réew mi quotidien ne en tout cas li nga xam ne moo am ba des daal Macky jël na ay décision yoo xamante ni maanaam yu impopulaire la ñu baree bari àndu ñu si te nag soo moytuwulee ñi nga xam ne ñoo yëngatu ci lu jëm ci mbirum njàng mi ak njàngale mi ñoom tim danañ lank kandaare na dañu dem ca école ya yéen kaay gi du l'observateur ne loolu kay na cay am ndax nag weeru juin bëri na ñoo xamante ni ñoo ngi ci njàng meek njàngale mi duñ sa dem benn yoona ci la témoin jàngalekat yi la ñu xam ne nag mooy li nga xamante ni mooy année blanche jamono ji daal kenn mënul tere mu daal di am bëri na nag ay waajuru xale yoo xam ne ñoom nee na bu ñu bàyyee seen doom yi dem ca école ba mën nañoo ñëw ci kër gi daal di kay wàll njaboot gi jël xale yi nag di dugal ci ay musiba ma ba kumba ñenn ñi nee nañu duñu ko nangu benn yoona su dee nag ki nga xamante ni mooy Abdoulaye Ndoye bu Cusems e la mu xamle nee na nag fexe ba daal aar ay bakkan maanaam sauver ay bakkan moo gën nag sauver li nga xamante ni mooy année blanche ndax am na loo xamante ni bu ñu si jéemee dugg loolee musiba rek lay jural réewum Sénégal yéen kaay gi di grand place moom mu xëy di ñu xam xamal lañu lu jëm ci wàllum dund gi ñuy séddale gis nañ ci nag ay luqi njur ak i njaaxuma ki tooxi doona yoo xam ne daat na ci am ñu joxar bi baaraamu tuuma Mansour Faye mi nga xam ne moo ko daal di jiite diwaanu tàmbaa nag ñoom dañoo jàpp ne daal mbir mi nag ay tuur lëndëm la bëri na loo xam ne ñoo ngi koy joxe amul diw amul li nga xam ne mooy ceeb yéen kaay mu ñu xamal lañu Idrissa Diallo moom nag la mu xamle daal bëri na ay njublang ak ak suuxul yoo xamante ni am na ci te lépp dañu ko daal di war a jubbanti yéen kaay gii di réew mi quotidien mu ñu xamal naan ñu njiitu réew mi di président Macky Sall moom nag daal nay bokk ci téeméer ak juróom fukki njiit yi nga xamante ni nag ñoom ñoo ngi woote di sàkku ab vaccin boo xamante ni maanaam gratuit lay doona ngir nag xeex li nga xam ne mooy woppi coronavirus ba tey ji biir bi mu ñu xamal naan ñu diwaanu Touba lu toll si ñeen fukk ak ñaar ci ay sapeur pompier ñoom daal nañuy amee li nga xam ne mooy woppi coronavirus journal bi di source mu ñu xamal naan ñu Sénégal jamono ji maanaam nag mbir mi soo moytuwulee ngi soppi loxo ci ak tàggat tembe ndax nag saa suñu xëyee mbir yi nag di gën a yokk ci réew mi yéen kaay gi di réew mi quotidien Aliou Nguy Ndiaye moom nag la mu xamle ñi nga xamante ni daal ñoo bëgg dem nag fekki seen i njaboot dem korite ji danañu leen yombalal li nga xam ne maanaam mooy autorisation yi ngir nag ñu daal di dem autorisation yooyee libération nee na am na nag ab trafic boo xamante ni daal am na ci maanaam ay njuuj njaaj yoo xam ne am na ñu ko si doon def maanaam ay faux autorisation am na nag benn kilifa boo xamante ni moom tudd nañ ko ca mbir maanaam benn directeur général bëri na ñoo xamante ni daal maanaam laale nañ sa te nag fan yi boo muy tulee dina am ñu bari ñoo xam ne danañu leen daal di teg loxo ci wàll woowu yéene kaay gi l'observateur mu ñu xamal naa ñu sénégalais yi nga xam ne ñoo nekk bitim réew te seeni waajura faatoo woon fa ñu jot leen faa denc ñoom nag jamono jii dañoo daal am xel daal leen di sulli indi leen ci réewam Sénégal am na ci nag koo xamante ni daal moom Nicolas Mendy la tudd moom nee na waajuram daal li mu sàkk woon mooy nag daal di koy denc ci ay mbokkam ca diwaanu Ziguinchor ministère bi nga xam ne lañ dénk wàllu woowu ñoom nag daal nañuy pare ngir nag gunge askanu Sénégal Sénégal ñi nga xam ne ñoo nekk ca bitim réew te nag sàkku seeni waajur ñëw ci réewum Sénégal yéenekaay gi di sunu làmb ñu fekk fa Bécaye Mbaye moom nag nee na nag mën naa wuutu ki nga xamante ni mooy Alioune Sarr ci bopp CNG daan nay wax ne bëri na ay cadre yoo xamante ni seen xel màcc na jëm ci wàllum làmb am nañu xam-xam bi ngir nag jiite kuréel gi nga xam ne mooy CNG moom Bécaye Mbaye di xamal Alioune Sarr na ko jamono ji nag gêné na lool ki nga xam ne mooy Matar Ba ministre bi nga xam ne moom lañ dénk wàllum tàggat yaram ndax bëri na ñoo xam ne ñoo ngi dem ci Matar Ba jóge ci bopp CNG